loolu àdduna sépp dégg nañ ko rawatina képp ku di jullit wala nga bokk ci yoonu murit mu naqari la lool ndax ku ne xam na ne Serigne Touba ci alxuraan sunna la mas a kon njabootam foofu lañu ñu mas di teg seen tànk euh, loolu nag sëriñ Touba wax ko fu ne bind ko fu ne waxoon na ne isil murid laa yuridu abada xayra rida rahmaani haysu xasada mhm. mu ne murid daal mooy ki nga xam ne foo ko fekk du sàkk lu dul ngërëmul yàlla keneen koo gis ci leneen xamal ne ci boppam la nekk moo tax nag yoonu murit daf dul ay caaxaan du lu ñuy ndax ci alquran ak lu ak sunna la tënku loolu sëriñ Tuubaa liggéey ci liggéey bu rëy te kenn jàppalewu ci kenn wettaliwu ko ci juboo ceeg boroomam ba am ci lii mu am ndax nee na bi muy dem ànd ak nasaraan bi ñu doonoon wettalam mooy alquranul karim ak yonente bi alayhi salatu wasalaam ak sahaba rafiqi kitabullah wal mustafa nabi wa ashabuhu fil bahri hina adoor kon nag mag mu tol ne moom du liggéey liggéey bu tol noonu ñëw fii eh, kenn jóge ci àll bu ñëw di xajamal wala nga di ko yàq nun xam nañ li xew xam nañ ne nasaraan bi ko doon fitnaal ñàkkul jeexit yu mu fi bàyyi xëy na stratégie la soppi waaye eh, mi ngi ba waaye loolu nañu xam ne eh, fii kenn ngi des ci njabootu Serigne Touba du seetaan mukk loolu di fi sax ba di fi jekk rawatina nag ñun suñu kilifa gi ñu am nga xam ne adduna sëpp respecté nañ ko wekk nañ ko ci fi mu bokk wekk nañ ko ci xam-xamam wekk nañ ko ci njubam wekk ko ci bëgg gi mu bëgg diine wekk ko ci bëgg gi nga xam ne moom la bëgg Xaadimu Rasuul ba ku fi masa nekk mu nangu la topp la ba yàlla may ko lii mu ko may tey nun dañuy taxaw ci wetam fas yéene saa yu geesoo gis ñu ca loola tey du ñu taxaw taxaw yàccaaral mhm. dañuy fas yéene nag lépp loo xam ne nar naa xajamal liggéeyam nun loola ci suñ kaw lay jaar ba noppi décision boobu la ñu jël te ku xamul safinatul amaan war nga koo dégg mhm. ñoo ngi ci vingt-trois cent et demi yoo xam ne yii suñu liggéey mës teg tegg te bari na lool ay résultats yoo xam ne xëy na ñu ko séqal xam nañ ko te duñ ko fàtte mm-hmm. ñooñu xam nañ lan mooy suñu capacité kon nun loolu suñu wax du ci bari lii sëriñ bi wax mënu koo ñàkk a wax ndax sëriñ bee war a wax ak ñëpp mm-hmm. te taalibe bi yëpp ñu ngi ko doon déglu di xaar kàddoom moo taxit bi waxam jotee wax na kon nag li mu wax ñëpp dégg nañ ko diskuur bi mu def warees na ko décortiquer bu baax tas ko càmbar ko bu laajee ñu koy jàllale ci xutbay ajjuma yi sax ñu def ko ndax dafa mat di tas ndax dafa mën a yóbbaale lu bari ndax yoon wi dafay bari lu fi nekk dugg ci biir te seen intérêt bopp képp dugal leen ci te sëriñ Touba taxu leen a jóg leneen a leen tax a jóg gëmuñu sax sëriñ bi loolu nag dafa yàgg dugg ci yoon wi waaye lu ci mën a xew lu ci dugg te bokk ci day mas a génn ndax qul laa yastawil xabis wa tayib walaw ajabaka kasratul xabis mm-hmm. loolu la yàlla wax mm-hmm. nee na lu baax lu bon duñ yem ba mukk nee na lu bon li lu mu bari bari bari ba nga di ko yéem bu mu la jaaxal ndax suuf rek lay jëm lu baax li lu mu tuuti tuuti bu mu la yéem ndax kaw rek lay mas a jëm kon nun loolu tiitaluñu ni ko sëriñ bi waxee jaaxalul ndax sëriñ Tuubaa bu ñëpp maase woon waaw nu ginnaaw lëggéeyam bi ku yàlla bind mënu koo yàq keneen ni mënta def say pexe ba ñëw yàqu li sëriñ bi wax nag leer na ku doon jéem a yàqu ba far yàqu nag muy kooku ñuy wax ay da jàll sëriñ bi moom lam ci wax leer na nañ ku yàqu ba noppi ne duutuñ nangu mu teg tànkam Touba mbaa kennam mhm. mbaa lépp lu wër tuubaa na xam ne ngaabu googu mu doon wàcc ngaabu dëkkub Serigne Touba la Serigne Touba moo ko ñaanoon def fa daara 1917 la ko sancoon mhm. doomi Serigne Touba yépp am fa wàccuwaay mu ñii suñu wayjur fa la gën a àdduna mu nekkoon dëkk boo xam ne kilifa yu bari ci yoonu murid jaar nañu fa ndax Serigne Fallou la fa njëkk a yabal mhm. ne ko yaa fay teewe sama jëm yabal fa ay kilifa ñu fay jàngale alquran ak xam-xam di fa nàmpatal diine ca ñañ fa fekkoon muy ceddo yi kon foofu du dëkku caaxaan li ñuy bañ Tuubaa gi lu ko raw lañ fay bañ foofu ci boppam mayetuñ kenn ku xeetu ci ñoom mu di fa teg tànk wala mu fay xumbal dara loolu niñ ko bañee Tuubaa gi lañ koy bañe te loolu junjoon naa leen ko bi ñuy jub màggal gi xamal leen ne na ngeen moytu def attention yëg naa ne nag am na yuñ fa def yoo xam ne waruñu ko faa def nee naa leen nag bu loolu rëccee ñu ngi leen di xaar ci beneen yoon waaye li wér te wér amatuñ accès fii moom ndax li sëriñ bi wax leer na képp koo xam ne teg gi nga ndigalul sëriñ bi na la wóor ne murid yëpp fas na ñu yéene xam fañ lay teg ak fañ lay xool mhm. ndax jàppee nañ la ne koo xam ne bokkatoo ci yoon ku bokkatu ci yoon wi nag sëriñ bi sañatu laa jox ndigal sañatu laa tere mhm. yoonam nekkatul ci yow mhm. waaye nag képp ku tuddoo yoon wi moom ak koo mën a doon buñ fexee ba identifier la ba xam la sa fi nitul amaan du la may benn tànk nga koy seq biir Tuubaa ko wër kooku moom pare nañ ci ak jumtukaay yi ñu ci war a jël yépp waaw ndax loolu moom la ñu sëñ Saliou waxoon la sëñ Mountakha bi fedd li ndax sëñ sii di Maxtaar sax am na jamono boo xam ne leeral na ma ne Touba ku fi ñëw titre foncier bi boo fi tabaxoon këru 100 millions wala 200 millions pare naa remboursé la sa peine ci alal ji fi taalibe sëriñ Touba yi indi te nga génn dëkk bi ndax ci suufu jàmbur nga tabax sa peine loolee nag moo fi ne ba nag sëñ Mountakha bi foofu la nekk ndax nun ñu fi war a rembourser sa peine dañ la koy rembourser jox ko daaray alxuraan yi ñuy jàngale ci alxuraan ndax loolu la Serigne Touba ma sa bëgg. mooy benn ngaabu bi. benn mooy euh, xam nga loolu. ñoom toujours rek li sëñ bi wax bi tekkale na ko sëriñ bi dafa wax ne lim leen waxoon kero dimaas ci guddi dafa waroon liñ jëf gannaaw bi. wax nañ lu waroog la sëñ bi wax ak ñoom jëf nañ lu waroog lañ koo xam ne moom lañuy ñuy jëf loolu nu moo ñu arrivé ndax man yabal na ay ndaw ci man ñu ñëw ngaabu booba yaakaar naa ne tam xarit gi sax ak séegul waaw booba booba tam xarit gi sax ak séegul euh, ba mu yabalee ñooñu ñu waxtaan ma xamal leen dëkk bi ndax ñu xam ñu xamal ma ne dafay am kër te dafa dafay lu wax ne eh, fi lay màggale si ma ne leen ah dëkk bi de moo Touba ñoo yem at te man lañuy ñuy doxal Touba ci loolu man lañ ko dénk kon fii di sama kër kon duma xalaat ku fi nangu ku fi def lool na ngeen ko bàyyi xel ñu wax accord yu leer ne yooyu yëpp xalaatuñu ko ba àgg ci ñu am ñu ma leeral sax ne ma ñu ngi yëglante ci seen groupe yi di wax ne euh, ku koy ñëw na nga muuru na nga am comportement bu mel nii na def nii na def naa kon mooy toujours ñoom li ñuy wax du bokk ak li ñuy def mm-hmm, mm-hmm. xam nañ ne man màggal gi du ma mën a génn Touba xëy na am na ñu ma fa nekkal mais xataay wi am na ci loo xam ne lii doo ko mën a contrôler waaye bu boobu boo xamoon seen position fa saasa dana demee neneen ndax ñun ah, am nañ moyen yu ko yu ko mën a lijjanti kooku moom jaaxaluñu waaye nag lii ñu def ci sëñ bi rek mooy li ñuy def wax joo xam ne ki koy wax ni ko alquran di waxee yaquluuna bi alsinatihim ma laysa fi xulubi koo xam ne li muy wax ci làmmiñam bokkut ak li ci xolam mm-hmm. kooku ku munta torom bi amul mm-hmm. waaye nag yaakaar naa ne eh, am na loo xam ne bu benn du ñaar waaw incha allah li ci am solo mooy waxtu woo xam buñ ci àggee dëkk bi am police am gendarmerie ñooñu ñëpp it yàlla dogal na def nañ ñoom ñoom ay waxtaan bi sëriñ bi yëkkatiwaatee ndigal li police def nañ daje fii waxtaan réunion ci yu bari di xool ni ñuy lëkkaloo ndax Safinatul Amaan liggéeyam am na foo xam ne fa lay tàmbalee waaye am na foo xam ne fa lay yem bu ko defee la cay wàllu police ñu jébbal leen la cay wàllu gendarmerie ñu jébbal leen du tee nag luñ leen ci jébbal nu it danañ xool ubbi suñuy bët topp loola ba xam ndax lañ ca war a def ña ko cay def wala déet ndax ñoom it am nañ ay kilifa yu leen fi yabal te sëriñ bi bi ñuy soññee ci ndigal li président de la république mu jiite réew mi dafa teew moom it am ndaw yu ko fi nekkal ci région bi ñooñu ñëpp it euh, képp koo ci xam ne euh, wekk nga ndigalul sëriñ bi fekk nga ko ci bëggam euh, la sëriñ bi santaane mooy ñu ànd ak yow ci liggéey bi lëkkaloo ci la cay sa cër jox la ko te duñ ca wàññi dara waaye yow it la la la ci war na ko def ndax ku ko ci defut it am na ku la te nun ko boobaa it danañ leeral ka la ne la fii la waroon a tàmbalee fii la waroon a yem waaye nii la ci doxale loolu moom day leer boo mhm. ci xam ne def nga ci la nga war a def it bu sa kilifa teewee daañu la sargal leeral ko ne ko kat def na li nga xam ne mooy li nga li ko loi bi sant waaye it li sëriñ bi bëgg jàppale na ko ci ndax sëriñ bi wéelewul loi santaanewu damay wax ne ndigal ak loi mën nañoo weccee ñoo bokk ndax ñoom ñëpp ci dëgg lañuy ñuy dox waaw kon euh, waruloo am xej loi warul am xeej ak seen ndigal warul am xeej moo tax ñun suñu liggéey amuñu ci xeej ak seen mm-hmm. képp ku di daal jàpp nañ ne ñun dañ lay déclarer guerre ak koo mën a doon mm-hmm. Mm-hmm. foofu daal lañ nekk te li mbir mi tege mooy xàll woowu sëriñ bi wax démb ne xàll waa ngi ni yaatu lool ku ci tege xam nga fa sa mujj nekk xàll woowu mooy kuréel bi ñu wax xisbullah xisbullah nag ala inna xisballah humul muflihun ëllëg dañuy texe dem àjjana mhm. waaye xisbu seytaan nag mooy ña wàcc yoon wi ne ci ñàllaw ala inna xisba saytaan humul xaasiroon ñooñu ëllëg dañuy perte dem safara mhm. xàll woowu sëñ bi wane nag mooy seraatal mustaqim mhm. mooy li sëriñ Touba waxoon bis ci njaareem ne baram day yowmal xeyam wutal na ma barab boo xam ne fa laay nekk képp ku ma bëgg a gis nag na nga jaar ci yoon wa jaaree ca yoon wa te wàccewu ko da nga ma fekk fa ma ne daal ne yoon wa nag siraatal la tudd ku ca jaar te ko de danga ma fekk fa ma ne te yaakaar naa murit boo làmb la ko gënal mooy bu faatoo ëllëg ci sëriñ Tuubaa kon nag ku wàcc yoon wa mën nga koo gis waaye ku ko wàcc nag xamul ci yow dara waaw kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax ndax daana wax ne itam képp ku ñuy tudd di ma tudd day nga di taalibe ngay njaboot ngay lu mën a doon na la wóor ne la nga baax le képp laa bokk ak yow képp koo ci xam ne kii am na ku la gis am lum xebet la ngay def nga xam ne gis na la ngay defi ñaaw téef ba mu nar ma caa xeebe man wala mu yabe ca sama yoon wii loolee nga jëf du ma la ko jéggal ba yowmal xiyaam loolu nag sëriñ Touba daf koo leeral ba mu leer nañ waaw fii mu ne dafa am yoo xam ne dañ koy sosal sëriñ bi di ko sosal yoon wi te dara bu ci dëgg sëriñ Touba boo bëggee am lu leer ci moom bu fekkee jàng nga dara demal ci mbindam yi la nga fa gis mooy la moom mooy li mu doon dund mhm. mooy li mu yarum njabootam ñu di boo ñëwee ci sëñ Muntaxa yi loolu nga keneen koo gis ci leneen xamal ne mbirum bopp moom mm-hmm. te bu ëllëgee moo koy wéete comme ni ko sëriñ bi waxee bi kon loolu moom na leer nañ fii nag di diisu seetaan mukk koo xam ne kii dafa ñëw yor sobeem wala lu taq bëgg ko fi dugal ñi ko ci bàyyi kooku moom kenn duñ ko may kenn ku yàlla bind kon loolu na leer ci boppam ñëpp képp ku fi doon xalaata installé dara wala nga am loo doon ràbb nag ko fi indi bàyyi boo nga tekki say bagaas ku fi amoon dara te yaakaar na lii la ko fi may bay boo nga xam ne say tànk dëgëru ndax titre foncier jàmbur fi nga ko am ku fi tabax këru cent million wala deux cent millions banque du la ci mën a lebal juróomi junni képp waxuma ak leneen kon yëfi jàmbur de kër jàmbur nga nekk kër gii Sëriñ Tuubaa samp nag dafa am lu mu fi ñaanoon lu wér a wér a wér waaw addaxoo ko an tajxalahu daara tuxaa wala ilmi wa diini wa daaral irtixaa këru ragal yàlla la ko ñaane woon ak kërug xam-xam ak diine yi ñuy jàmm sàmmonteeg diine ju mat sëkk kon loolu nag leneen lu fi waaye def lu waroog yooyu na nga xam ne pexem saytaane nga lëkkalool tey yàgg yàgg daa dees na la génn ca biti ndax fii ñuy defaru moo ko tax a jóg waaye ñuy yàq taxu koo jóg mhm. ku bëgg defaru ñëwal ku fi dugg te bëgg yàq yi dañ lay génn mhm. wasalaamaaleykum wa rahmatulah Okay. Well,